Benno Bokk Yaakaar ñooy ŋàññante gis nga Mame Mbaye Niang ak Abdoulaye Diouf lu ne Mame Mbaye Niang wax Abdoulaye Diouf Sarr boo demee ca diwaanu Saint-Louis foofee Mary Teuw Niane dara Mansour Faye te nag bokk na ci li nga xam ne dafay yàqal coalition Benno Bokk Yaakaar yéene kaay gi di exclusif nee na Moustapha Diop ca diwaanu Louga moom tim ak Mamour Diallo ñoo nga fay reyante Moustapha Diop yàkk na musiba ak mbelengaan Mamour Diallo ko 94 milliards xam ne moom la la Ousmane Sonko tuumaloon loolee nag da a wax lu leer te Ousmane Sonko am na nag sañ-sañ moo nekk ci dëgg tuumal la 94 milliards Moustapha Diop daal di wax am na lu toll ci 150 dossiers bu passé 94 yee Moustapha Diop ne 94 milliards yii nga xam ne moom la ñuy wax ne Mamour Diallo daf koo daal ngembal loole nag mënoon nañ see tabax lu ci mel ay hôpitaux ñii daal ay sàcc professionnel lañ ay voleur professionnel la yéen a kaay gii de laas xëy dañu xibaar naan ñu Arona Coumba Ndoffène Diouf jamono ji ma ngi ci guddi gu ba tëddugul mbir yi nag nar mooy biscuiterie waa APR dañoo boycotté campagne yu Arona Coumba Ndoffène Diouf yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias nee na Grand bu ma gàñee mairie bu Ndakaaru leen génne lu toll ci ñetti milliards ngir na commune bii nga xam ne mooy Grand Yoff mën a suqali ko son wartine mi nga xamante ni candidat la ci mairie bu Ndakaaru ci la coalition bunt bi moom nag ni ki démb seeti woon na commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Sandaga Cheikh Ba ci diwaanu Médina yàkk na musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Bamba Fall Cheikh Ba nee na Bamba Fall ay nag yu ñuul la rey ngir faluwaat xëy ñu xëy fekk fa Pape Diop coalition bokk gis-gis Pape Diop mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon maire bu Ndakaaru niki démb nag def na ab caravane boo xam ne maanaam oto yu bare bari ñoo ko dara mu jaar Wakaam Ngor Yoff Pape Diop daan nay wax ne ñii nga xam ne ñoo nekk ci lu jëm ci wàllum violence bi mooy ñi nga xam ne amuñu programme ndax ko am programme dootal violence Pape Diop moom nag daan nay wax ne fii fépp nga xamante ni jaar naa fi gis ngeen ndox mu bon mi nga xam ne maanaam moo nekk ci mbedd yi te nag lii problème santé publique la Pape Diop daal di wax ne ñii nga xam ne ñooy lebu yi seen suuf la ñu jëloon ngir nag tabax ci li nga xam ne mooy aéroport Léopold Sédar Senghor bu ñu demee nag ba nga xam ne aéroport bi doxatul ñi nga xam ne ñooy lebu yi maanaam dañu leen war a jox seen suuf yéen a kaay gi di réew mi ko di jaay xëy dañu xibaar naan ñu ñetteelu fanu campagne yu Benno Bokk Yaakaar match Sénégal bi Abdoulaye Diouf Sarr ak Seydou Gueye ak Sara Ayane Dia nga xam ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci Sicap Liberté fan zone la ñu installé fi nga xam ne mooy Sicap Liberté ngir nag seetaanee fa li nga xam ne mooy mat bi bokk ko ak askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo mbir mi nag Sénégal gagné maanaam mañax mañax ji bëri woon na lool mooy écran yu ngand yooyu yéen a kaay gi di laas ñu koy fekk fa yeewi askan wi ci diwaanu Louga Abdou Lahad Ndiaye daan nay teg programme bu yees programme boo xam ne tabax la ko tuddee ndax nee na Louga jamono ji maanaam war nañu ko soppi Benoît Samb sa diwaanu Ziguinchor waa Samb moom tim teg na programme bu bees nee na zig bu bees nee na zig bu bees Benoît Samb yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Abdoulaye Balde ak Ousmane Sonko moom nag Benoît Samb nee na Ousmane Sonko daal tujul moo tax mu dem jiggaane ay nit te tiiwaanu yeneen gox ci Sénégal ngir nag andi leen si ngeen soor ngir làq nag li nga xam ne mooy impopularité ma Ousmane Sonko niki démb nag maa ngi woon sa diwaanu ñagis wax na ak ñoom nee na leen heure tànn jot na tanag nag bu ngeen amul fula tànn maire boo xam ne dina wax Macky Sall déet ëllëgi si biir nag lu leen dal ci lu jëm ci seen wàllum suufa ne leen leer na yéene ko teg seen bopp yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu fula mooy jaay Dakar ñi nga xam ne ñooy waa ginnaaw bi leen CEDEAO tegee ay nag daan nañuy riposé tëj nañu seeni frontière ci suuf si ak si jaww ji ba pare nag dal xelu askan wi yéene kaay gi di Vox Populi Alpha Blondy daat nay wax ne lii nga xam ne CEDEAO daan ñu koy defa Mali teguñu ko fenn te lii nag waa France ñoo nekk ci ginnaaw CEDEAO tekki wuñu dara dañoo lajj lajj total yéene kaay gi ñu koy fekk fa économiste bii di Moubarak Lo Moubarak Lo nee na nag tëj gi nga xam ne tëj ñu ko Mali Sénégal rek moo ci perte ndax nag exportation yi Sénégal yi def yëpp pour cent sa Mali la jëm yéene kaay gi di sunu làmb nee na ñi nga xam ne ñoo doon xaar